mbégte la saa su nekk ci ñun ci rajo Futur Média di ànd ak yéen fu ngeen mën di nekk ci réew mi di ànd ak yéen ci xalaas suñu journal fait divers lundi ba vendredi fii ci RFM ñuy indi ay xew-xewi jamono yu xew ci réew mi wala ci bitim réew soxal doomi réew mi ñu di ko waxtaanee loolu mooy xalaas di ci ànd nag saa su nekk ak Aba No Stress di ci ànd également ak euh, Passe Partout. mais di ci ànd également ak partenaires yi ñu ciy gungeel mu di sponsor yi nga xam ne saa su nekk dañuy gunge ci xalaas di leen remercier bu baax a baax daañu ñëw ak ñoom ci kanam tuuti mais gannaaw su ma nuyoo sama waa ji sama sama rakk ji passe partout maa ngi leen nuyu bu baax a baax euh, diwe di la ñaanal kooru jàmm saa su nekk. jaajëf Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar di la ziar bu baax a di nuyu Aba No Stress xam naa léegi mu egg di nuyu mbokk auditeurs yeeg internet di leen ziar ñoom ñëpp di leen ñaanal jàmm Ndiaye fépp fu ñuy dégloo ci waxtu yi. wax nga ko Aba ñooñu koy xaar ci kanam tuuti konte ñu fekk si baabak war nañoo fekk si mais ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñoom saa su nekk ci xalaas mu di partenaires yi du ñu jóg ci di leen remercier du ñu jóg ci di leen jottali également cant ak ngërëm yi askanu Sénégal am ci ñoom ndax euh, ni ñu leen noppalee ndax yu baax yi ñu leen indil mais également ndax ni ñu seddalee seen xol mm-hmm. buñ koy wax day dem ci yow Optique Vision Plus Sénégal lunettes partout et pour tous ñoom ñi indi ay lunettes yu baax te yomb garantie ay lunettes yu moderne ay lunettes vision de près wala vision de loin ñu wàññi njëg gi ba ci cinquante euh, ba ci quinze mille francs CFA mm-hmm. ay euh, progressif avec anti reflet ci trente cinq mille ay percé original ak traitement X bu lu yomb ba dee ay verre photogré anti reflet ay monture de marque yu original Optique Vision Sénégal loolu la indi ba nag fu ngeen dem ci réew mi mën ngeen a am ci lunette yu Optic Vision Plus Sénégal mën na def seen ay commande bu ngeen soxla ay accessoires de lunettes également dem leen ci boutique Optic Vision Plus Sénégal yi nekk ci réew mi showroom bi mi ngi fii ci Védane bi ñu ubbi boutique bu bees tàq fële ci diwaanu Thiès fan yi lañ ko ubbi nekk kon Mbour 3 extension ci côté résidence Lat Dior am nañu boutique Louga am Saint-Louis am na boutique bu mag bu ñu ubbi Touba en face kër Mam Mourtada Optic Vision Plus Sénégal mi ngi Mbour euh, mi ngi it euh, fii ci euh, kër Mbaye Fall ñu seen numéro téléphone di 33 821 54 57 77 479 63 38 di leen wax ne bu ngeen bëggee ay lunettes yu baax ay lunettes yu garantie ay accessoires lunettes ay conseils jëm ci wàllu vision dem leen ci boutique yu Optique Vision Plus Sénégal yi bu ngeen bëggee dund gu ànd ak noof lay gu neex day leen jëfandikoo gamme bii nga xam ne moo di vite fait établissement waa kër Serigne Touba Fall frère ñoo ñu indil gamme vite fait bi gamme la boo xamante ne ji tur la bu wuyu borom loo ci bëgg ci ni nga ko bëggee di nga ko am boo soxlaa bu baax ngir yaram buy metti nga nga soxla pâte dentifrice nga soxla cuuraay bant nga soxla cuuraay bu neex am na ci gàmmu vite fait bi gàmm bi yemul foofu gàmm bu complète la établissement waa kër Serigne Touba Fallé yi ko fi indi di jàmbaar champion de l'économie di liggéey lu am solo ci réew mi seen numéro téléphone di 77 555 11 11 77 806 15 19 77 488 51 93 wala 76 577 06 63 ñu leen di gërëm bu baax a baax ñoom établissement waa kër Serigne Touba ku ci mel sama waa ji Moustapha Fall mais également Modou ak ñi ñu àndal ci liggéey bi yëpp points te gàmmu vite fait li ci gën a neex mooy. marché boo mën di dugg ci réew mi boo ko laajtee am na fa. boutique boo dem loo soxla ci gàmm bi am na fa. loolu mooy gàmmu vite loolu mooy Optique Vision Plus Sénégal ñu leen di remercier bu baax ci ni ñu àndee ak ñu ñun ci xalaas sama waa ji doon xaar Ababacar yegsi na Aba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndiaye maa ngi kontaan bu baax ci passe partout euh, di wax euh, waa Kër Serigne Touba Fall et ñoom moti nag ñooñu heure bi daan na fekk ñu indi sukkur koor bu yàgg. <laughs> di ziar internet yeeg. auditeurs yi nga xam ne mënut a gaaw sukkur daa manqué. waaw. Ah. non non sukkur am du waxee waaw waaw bilaay du am sukkur. su doon kon léegi amatu suukar. amatu suukar enveloppe lay nekk wala. li <laughs> yàlla <laughs> mais toilette nga de. ah Ndiaye man de dama ànd ak benn booy boo xam ne Poutine go. Hmm. moo def démb moo def tey xam naa ne ëllëg it moom mooy defaat. ban yegguñu merci rek. merci beaucoup maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu maa ngi boo ma mayoon tuuti sax dama lay laal numéro bi. Hmm, jàpp nga ko 77 255 77 77 mooy Poutine go numéro la xale bee ñëw yii. joxaat ma ko. 77 euh, kooku sama xarit la 255. 77 77. jeex na. putain ko. yàlla na yàlla defal ko jàpp fu ñu tàmbalee ci xalaas ñoo sant bu baax a baax. aleen si tey rek dama waroon dem ci banlieue bi. waaw dem ay yëmbal joxe fa ay don waaw ceeb diwlin ak yooyu yëpp. ak ay ndogal yooyu. Mm. mais damay bàyyi mu sedd ba samedi wala ba dimanche. lu xew waaw damaa bañ génn réew mi xam nga xale yi jaxasoo euh, ñun. man yooyu waaw waaw waaw. xam nga nag lii mooy problème bi. waaw ñax gu wow mooy lakk lakkaale gu tooy. moo tax ma bëgg teg lépp ci suuf rek. te te li wér mooy li wér mooy am na ñoo xam toogoon nañ tey di la xaar ah, mais àdduna am solo àdduna am solo yal na yàlla sàmm réew mi rek ah? yàlla def ci réew mi jàmm xam nga ne xañ nit lu mel noonu te yow mi ko xañ doo ko ko jox xam nga lenn tamit ak xala de mm, c'est compliqué très compliqué c'est compliqué très très compliqué parce xalaas bi njëkk fan la jëm mooy fi ñëmoon démb mm-hmm. gaaw sumeeku gaaw sumeeku ci internet bi mm-hmm. expliqué ñu yónni capture xam nga chaque fois ñi am contact bu fekkee jigéen la nga am contact ak góoru tubaab. Mm-hmm. bon soi-disant góoru tubaab. Mm-hmm. bu fekkee góor la nga am contact ak jigéenu tubaab. mais tout le temps ay nit ñu weex lañu doon. waaw moom lañ lay ñu yore ba pare yor ay numéro xam nga numéro virtuel yi gars yi koy jënd. Mm-hmm. numéro eh, Europe États-Unis gars yi ñu koy jënd internet bi. léegi bu ñu ko jëndee installé ci WhatsApp di wax ak yow soit Canada France wala yooyu noonu. nga jàpp ne ña nga bitim réew. waaw léegi nag bu ñu demee ba gagné sa confiance nag. woolu appel vidéo ay ca jël benn vidéo pré-enregistré tegal la ko yow nga jàpp ne yow ki ngay waxal moo def lii. fekk mën naa doon sax góor. non góor lay nekk da góor lay nekk ci chaque jour góor lay nekk. yow dangay jàpp ne jigéen la da ngay jàpp jigéen la comprendre nga. Mm-hmm. fekkee yow yow miy góor bi nekk bi nekk Sénégal ki ngay waxal jigéen da nga jàpp ne jigéen ngay waxal fekk na góor a ne ci ginnaaw mm-hmm. bu fekkee jigéen la nag ka ngay waxal vidéo góor la lay tegal nga jàpp ne nga jàpp ne góor tubaab ngay waxal. fekk na yow beneen góor moo ne ci ginnaaw dafa la piège tegal la lool. mais dafa mel fii Sénégal euh, góor ñi victime yi ci góor ñi la ëpp de. <laughs> ak a bari. te bopp rek jaay te la woyof bopp rek. parce que dañ yëpp ay góor la ñu. ay la ñuy piège jaay. c'est très ah. mat naa mat gu toll ni mhm. lii moom emporté rek. ah emporté rek. livraison à domicile moom maa la ko indi lan. gaa yaa tax ah yor lu may whatsapp ak lu may eh, mooy yow ah, emporté rek nga emporté laa yor. <laughs> léegi ñu déglu waa ji. ayca. suba digg maa toog ku ma soxla benn appel. femme femme la sax juste. dama xale bu jigéen la Pape mu ne moom nationalité française la quoi nationalité française. mais mu ngi Allemagne Allemagne instant bi foofu lay liggéey quoi. mu ñu waxtaan. juste euh, benn moment rek euh, mu futteeku. def yaramu neen. di wane ay bagages am di wane ay bagages am ba pare dama dégg naa futteeku. non ma ne ko doon na pourquoi ma futteeku. ma ne moom moo sexe ma ne di insister di insister ñu teg na ma toog ma ne waaw lii est la après en euh, toog recevoir benn appel boo xam ne moom tamit xaw ma ko nekk ci voie góor la quoi mu ne ma Thia Drass kon nag après dama la di tuuti quoi mu ne ah bon mu ne waaw ah, mais après obligé si la obligé dem ba wala kay numéro wala ko whatsapp wala ko message am tout ça voilà vraiment lii dafa doy waar quoi dafa doy waar trop trop trop sax parce que jamono toll nii gars yi wóorutut yow n'importe qui vocal chaque jour mu ngi koy dégg classe mais vraiment c'est désolant Euh, après ma toogaat benn instant encore suba benn appel boo xam ne xaw ma benn xaw Sirac Boy ki ñu ngi sécuriser li nga tax si réseaux sociaux yi chaque jour ñu ngi koy dégg nag chaque jour ñu ngi koy dégg vraiment c'est des hommes ñi vraiment neexul quoi voilà ñi yàq na ëpp trop trop trop ko suma sexe bi ko voilà dañ nit ñi ay xale lañ te yaakaar naa ne li yàq seen avenir dafa yomb yàq seen abonné dafa yomb quoi képp koo xam ne rek ay appel ay vidéo extérieur bu uyub te da nga wër bu baax te yaakaar naa ne dañ leen appareil ngay tegal wan la xale bu jigéen bi def ay simeeku remonaan bi simeeku remonaan lépp ngay gis tout après nekk benn vidéo bi montage la quoi teg ko moom yow nag boo defee nag yow doo comprendre quoi danga foog ne mu nit ki rek sa entière moom la te fekk loolu moom dañ ko montage teg ko moom rek en vidéo léegi nag ñu wane section tout ça voilà man nag loolu ma def quoi ba yaa ngi naan yaa ngi naan góor ñi góor kii wax naan def nañ ma ko ne jigéen la. ah bon waaw gis nga ñu ngi bind def nañ ma ko gis nga gis nga Ndiaye. dafa am ñoo xam dañuy wax am ñoo xam dañuy wax. xam nga c'est-à-dire gis nga souvent mu dal benn nit mu wax ko pour alerter yu ñu fi def yëpp noonu lay demee mais daa am ñoo xam ne dañ koy noppiwaale am na koo xam ne instant poñe nañ ko ma nga yónnee xaalis chaque jour jigéen ñi ndax duñu dañuy dañ leen di santaan ñu yónnee xaalis <laughs> waaw. ñax est-ce xam nga chantage yu gën a métti ci àdduna boo commencé c'est fini. du arrêté. li ma bëggoon nga laaj ko waa ji mooy lan moo ko motiver ba tax muy wane ak suy wane lu muy wanee waaw li li wax na ko wala Aba. ah bu dee man la laaj kay ma mën ko cee tontu. déedéet yow ñu gis ah, ne ah, kan nga xam naa la dañoo woote tey dañuy am sept jours. ah laajee moom moo. jour si mooy 23 Aba doon ñu ko yàq. li ñuy wane Ndiaye neex après vidéo Ndiaye laaj la la ñuy wane. waaw en fait góor ni <laughs> li ñuy téye ci yow boo jëlee santaat naan la boo ma joxul temps ma wane ko loolu ngay laaj nii naan la la ñuy wane. waaw mais non xam nga góor ni léegi quand même. Ndiaye. sexe sexe su la neexee ñu avancé. déedéet eh baax na avancé fan. sexe. baax na loolu kay la. lan la ñuy wane sexe waaw non baax na Camara baax na de billaay baax. li gars yi di wax naan c'est une dinguerie wees. <laughs> c'est une vraie dinguerie. wuy ma. lan moo ci toog nan nan nan ci bàyyi xel de. ah baax na. nan ci bàyyi xel dëkk. yow doo def contrôle. mooy li ma lay wax Ndiaye sa koor gi baax na. man Ndiaye du ma envoyé kenn dara man Ndiaye du ma envoyé kenn dara. yow la neex wax man tu passes la commande avant. c'est un livre mais à emporter <laughs> ay kenn mu koy à emporter rek yor ma loo xam ni mën naa génn di ñëw. maa ak moom ay ànd ñëw. <laughs> ñu ñibbi ay wax ji léegi moom. vidéo boobu ñu ko def. Hmm. ñi ko ko def lu ñu jublu. non da chantage. pour mu joxe xaalis. gis nga defee la ba pare. Hmm. dañ lay enregistré. non bu ñu tegalee benn vidéo enregistré. Hmm. dañ lay wax yëpp nga sumee ko te maanaam boo amee tuuti seddu rek. ñu tegal la benn vidéo yow boo xoolee di nga xam ne kii di wax ak yow du maanaam waxul kii ci vidéo waxul ak yow mm. mais à chaque fois nit ñi dañu daan ci piège boobu noonu mooy ci affaire Sadio Mané yi mooy ci affaire euh, ay ay Samuel Eto'o yi xaw ma yooyu noonu euh, xaaral mën nga wax lii ci affaire ay Eto'o yi yëpp ay vidéo préenregistré lañ lay tegal léegi dañ la koy yónnee nag ci seen ay numéro dëkk yi ñu nekk ñoom pour wan la ne ñoo ngi ak sa ay vidéo ne ñoo ngi ak sa vidéo yónnee ñu temps wala temps wala temps wala temps soit mu nekk kilifa kilifa am na fi kilifa néew na ma fii di yónnee di yónnee boo xasee ba commencé si génnee mooy buñ la ko defee amul fu laay bloqué leen fépp fépp fuñ la xamoon Instagram Facebook. supprimé sa Facebook kilifa ko defoon peut-être kilifa ci ay poste de la. Ah, waaw ñun yaay ñun kilifa de. kilifa maturité la. mais ñun ñooñu la ñuy wooye kilifa. ni toog na yorul benn cër. Hmm. kilifa gu mat sëkk. kon loolu moo tax Sénégal ñuy wax kilifa aada. Ah, parce que parce que domaine aada bañ ca nekk dañ caa am poids am ca maturité am ca vécu am ci expérience. moo tax ñu ngay dégg kilifa aada kilifa àdduna kilifa diine loolu la. mais dama ne la am na ñoo xamante ne ji seenu doxin boo leen xoolee xeeb leen ñooñu mënu leen wooy kilifa. nangu mm-hmm. la dëgg la xam nga kuy dem di juugi yëfam ci internet nga taxaw fi naan ma kilifa la xam nga kooku aussi tamit boo ko tuddee kilifa da nga kilifa mën naa kilifa mën naa juum. ci ah. kilifa mën naa juum. waaw loolu d' naa ci. kilifa mën naa juum de. loolu <laughs> ñu dem. bëgg na fi ay kilifa <laughs> ñu dem ñu dem ñu dem dem. yow nañ jëm passe li nga bëgg a xaw ma kañ nga am occasion wax. <laughs> xam naa du ci rajo bi. du fii la koy waxee dama. bu ñu coupé antenne bi ci biir rek mu waxtaan ak yow ci lañ dëkk. petit ba mm-hmm. laa tuddee élément la xam tax Aba. waaw ah. ndaw aussi mag la. dem na ba am ay doom yu mag mais histoire dafa commencé bi mu nekkee xale. bi mu nekkee xale ne dañ ko doon sàkku te ki ko doon jàngal moo ko doon sàkku. parce que seen situation wu kër demeewuloon noonu donc. ki ko doon jàngal ki ko doon jàngal école waaw. xam nga li laa doon wax dem temps def primaire maître bi ma yoroon cinquième dañu doon jàngal lekk mango vert baaxul te ci bunt bi yaay ma fay jaay mango verte. <laughs> le pës <laughs> bu yaay ji ñëwul jabar jee ñëw te moo ñuy jàngal lekk mango vert baaxul mooy comme lii aussi mango vert moo tudd le pës njaay maanaam bu ñu ko daggee uh-huh. dëbb ko daf ci ay kaaneek yooyu noonu ñun waa Thiès le pës lañ koy wax damay fàttaliku leçon bi mango verte baaxul waroo koo lekk daa métti ci école bi yaay moo fay jaay mango verte <laughs> bu yaay ji ñëwul jabaram mooy ñëw <laughs> léegi loolu nuñ koy bàyyee yeggaleel nga nekk ki ko doon jàngal maanaam ki ko doon ki ko waroon wax ne ko daal takk sa sër moo daan tekki sëram. Uh-huh. léegi nag comme seen situation de parce que moom moo ko doon moo koy wax ci élément bi seen situation demeewuloon noonu moo ko daan jënd ay fourniture. Hmm, jàngalekat bi. waaw uh-huh. boobu mi ngi def uh-huh. amoon jëm. dafa précoce mu sàkku ko sàkku ko sàkk ko ba mu def entente si amul. Hmm. mu bàyyi. léegi nag bi mu bàyyee. ki la jël yoonu boo xam nag moom. moom ndaw si moom ndaw si mhm. jël yoonu boppam nag góor ñi tabax yi ginnaaw marché yi oh. magasin yi mu dem ba affaire bi nekk benn genre virus ci yaramam ba am ci ñett doom ñu bokkul pàpp te sëyul te sëyul ci léegi nag dem na ba instant bi am na jëkkër mhm. ba demoon ba commencé casé wu paasem dabaat ko am nu mu ko dabe hmm. te ay doomam màgg nañu. ba dugg ci benn association boo xam ne ay nit ñu baax ñoo fay nekk ba jël ko moom seen yaay dugg ci association ba. ñu gën a laal wax ne. ma association ba chaque ngoon ñu ànd dem ca mais moom paasam dam na ko am na yeneen ñu def ci ñu defaat ci suuf. ñu ko paasam dabe. maanaam dem na jëkkëram wéradina moom pour mu. jënd ay dund yooyu il faut mu dem. dundaat la mu doon dund dundaat la mu dund am weccit ñëw am nu def. tam eh. léegi nag nee na ay doomam yàlla moo leen baaxal te moom mooy ku bon ki. te buggul ay doomam eh, eh. gis lii non non bu mu jàppee boppam ku bon. ñaari parti la de. waaw bu mu jàppee boppam waaw man nañ ko déglu ba pare. déglu. Eh, xale ko tout tànk dañ ma doon sàkk jamono yooyu ba maa ngi doon def seen dënn léegi mu ñëw ne sama papa ndax boobu gis na ñun ay pauvre lañu woon ay néew du ñëw expliquer ko ma ko ko jënd ko léegi nag comme xel na ma mu ne sama papa léegi bés ñu ci tey maa jëndal xale bi cahier def naa ko sama rakk def naa ko sama doom jëndal ay cahier dina jàng seen la ma doon commencé jëndal ay cahier tey da koo tëj VT seen 2 mu jënd ma frite jënd ma saa jënd lépp léegi rek ko jox sama papa dem daf sama papa tamit wóolu ko noonu noonu noonu ñu war a def essai mu def sama papa comme xale bi dafa xaw a kii tuuti si jàng yi léegi nee ñëw sama kër ma koy jox cours de renforcement ndax pour examen bi nga dama leen bëgg a jàppale pour xale bi dem noonu may dem trop ma jox ay cours de renforcement ba benn jour daal bu ma ko fàttee 4 novembre sama rappel bi 4 novembre 95 jour sama mag bi da doon accouché sax di am doom ndax sàkku na ma te samay parents yëguñu la boobu samay parents ñu ngi hôpital di nekk sama mag jigéen bi noonu ba dama tooñee dama naan nga baal ma ci kàddu mu ne naan xale bi am ñama mag loolu nag la ma doon waaye suñu wéyte man noonu noonu noonu mu ne sàkk dama sàkk dama sàkk plusieurs fois amoon fit boo ko sama papa ndax boobu man dama ragaloon man te dama nekkoon xale bu ragal noonu noonu noonu sama yaay ne defaat ma ko dee damay bàyyi ndax boobu ragal naa defaat na mu yorawaat ma ma daal di abandonné jàng sama yaay wax ma damay bàyyi noonu la lay def ma ne ko ñoo jàppale te muy wër des fois da nga mën a dañ def tamit ay xale yooyu kàccoo des fois ñu dugg na si tabax yi tamit sàkku dem ba léegi affaire bi nekk si man habitude ba mu noon màggaale moom ñu am ñetti doom yoo xamante ne dañu ko trompé mais sama taaw ki topp sama taaw ak sama ñetteelu doom sama taaw ki ma trompé kooku dafa bañ mais sama deuxième bi nangu na troisième bi nangu na mais ki ma trompé sama taaw kooku dafa bañ complètement nee na moom affaire bi topp na affaire bi topp na xam nga man nekk si lu bañ neex man tamit amoon kenn ku ma kii sama mbokk dem ba mu ne dama ne yaa ko tay xam nga man naa ko tay sama bànneexu bakkan laa topp fekk ñoom xamuñu ñu kuus affaire bi ma ji dina métti xelal la ma tàmbal lu bon ba mu def sama yaram tàmm ko noonu yàlla na natt ma am borom kër tamit bi ma amee borom kër yàlla def dem na am na si ñetti doom yoo xam ne bokk kenn bokku jël sa morom papa ñii nangu nañu ñii nanguwuñu am na borom kër toog na mu ngi sëy sëyam xëy na un jour boroom kër gi tawat dikkal na ko mëntul liggéey mm-hmm. léegi nag moom moo dem di liggéey mm-hmm. di fóot ak yooyu noonu mais affaire yi doxul am na benn ci benn ñu waxate rek kilifa bu muy dem mm-hmm. kooku moo koy dépanner mais pas gratuitement pas gratuitement merci kon koy dépanné wu ko dafa gën a paanal. dañuy boo moom fi nag pour jàpp ne yaa koy dépanné. waaw pas jigéen rek. ku mu mën di doon. mu hmm. soxla mu diis soxla ñëw pour jàppale nga jàppale ko am loo ci laxas dépanné woo ko da nga ko gën a paanal. yow da koo gaaraas koo gaare. ñaagal. et dem ba ci biir nag mu ne ma sama feebar feebar ma feebar mooy feebar ndigg laa dafa dama amoon doom sama doom bi dee si sama biir bi léegi nag ma jële fa feebar ndigg bi metti mënatuma sëgg fóot yaram bi mu tur ah si laa commencé di dem si waa ko ñu ne numbari waaye sama dama ñaan ko mu daal waaye sant na ma nekkal moom su ma joxee ma fay sama loos heure mu ne problème lu wax ci waajooj laa doon dem su ma demee ci waajooj wax dëgg yàlla waaye tamit nekk moom parce que joxoon ma ñëw fay sama borom kër du xam lu xew day yaakaar ni damaa dem liggéey ñëw indi parce que moom da doon def lu mu feebar feebar yëpp dañuy jëm des fois dem di doxantu nekk ci noonu nekk ci noonu nekk ci noonu heure mu kii rek dem nekk a ci noonu di wax naa tiit nag jóg rek yow rek tooy xet ma ñàkk tooy xet ma jóg dugg si duus bi sangu jàpp julli julli ah doon loolu yaa ngi ne naa essayé xool su ma amee dama dem si waa ji même su ma amee problème sax depuis bu ma ko defee ba tey su sama dëng bi sama si toppoon kon tey dina yàq samay doom wala mu alag samay doom fa ñu dem dañoo dem ba dañoo am cër boo xamante ne ci dëkk bi mooy cër bi ñu am mooy dañoo nekk ay jigéen pare dañu dem soirée dem ba man lii muy dund dinaa leen cëtt da seen jàng te bis ba boobaat naa leen dinañ ma baax te sama borom kër te bis bu ko xamee man sama sëy dina tas dafa wax dëgg yàlla du nangu loolu te loolu góor tamit di ko nangu ma ne ah naa ñëw ma wax leen sama xalaat ba li ma mën a jàppale ci liggéey ñu jàppale ma ci liggéey ma mën a fay sama luwaas ba borom kër gi doot ba dootuma delluwaat ci waa ji di may fay luwaas la fi ma nekk li may wax ak yow wallahi alil azim le sa tamit dama ñëw ba xalaat bu ko demee si waa ji ma ma yi a a a doom dañu xam li may dund sama borom kër tamit doo xam li may dund dafa ñaanatuma yàlla dellu fa ñaanatuma ko yàlla ñaanatuma yàlla dellu si li ma nekk woon jamais jamais jamais bëggatuma ko bëgg naa ne dañoo ñàkk ci man seen yaay naa dëgg ma ñoom yàlla moo leen jubal waaw ñoom jàppale ma rek ba ma am liggéey ma bañ a dellu ci li ma nekkoon parce que bëggatuma cee dellu wallahi bëggatuma cee dellu yàlla ñu yàlla gën a dolli sutura ak abaa waaye gis nga réew mi bu ñëpp waxee noonu. xam nga sanq nee nga moom femme bi jàpp na ne doom yi yàlla leen dimbale ba ñu baax. Mhm. mais moom moo moom moo bon ma ne la non bu mu jàppee boppam ku bon. Mhm. da ngay dégg sax suñu papa ji coon sekk da ko doon wax ne yàlla amul lu bon. Mhm. juum nag du ñàkk. juum. du ñàkk. gis nga lépp a ngi tàmbalee ci ba mu nekkee xale. Mhm. maanaam dañ koo wan yoon wi. après nag waaw am na ñu naan xëy na waroon na am éducation waroon na fonk boppam waroon na kii bëgg ay fourniture waru ko woon na tax a dugg ci muy joxe boppam waaye lépp ngi tàmbalee ci ki ko doon jàngal te sànk. bien sûr. Mhm. xam nga luy erreur mhm. mooy doomam yi ku ci jël yoon bi moom du moom moo koy yedd. moo tax dañu war a bàyyi xel bu baax a baax ëllëg jaam bi lu yàlla bind ci moom munu munul munul munul munu ci rëcc yàlla ne di nga jigéen nga di nga am juróomi doom yu bokkul bàyyi te amu ci kenn ku ci juddu ci sëy mhm. yàllaa ko bind munta rëcc loolu dëgg la mhm. waaye nag ab jaam day sabablu aussi xam nga moom bëggoon a casé moo tax mu daw am fu mu làqu mhm. sunu borom ñëw ak natto munu ci dara jëkkër ji feebar yoon nag njaboot la ko la ko jàppoon ba tax mu doon jox boppam jàngalekat bi juste pour ay fourniture kaye ki big ak yu ni mel. Mhm. lu ko raw jàpp na ko jamono ji. waaw ndax booba du woon problème lu mu lekk. du woon problème lu mu fayee location du woon problème lu mu fajoo du woon problème lu mu fajee doomam mais cette fois ci nag charge yi dañu gën a diis. Mhm. ndax location day taxaw ak dundu taxaw am paj taxaw c'est-à-dire lii siggil doomu aadama taxaw li ñuy woowee dépense de souveraineté. dafay taxaw donc situation bi gën naa compliqué te bala nga xam ne abaa du doon dundu ndakaaroo metti nga tollu diggante <laughs> dundu ndakaaru bu njëkk ba dund gi fii la gënoon a neexee fi nga daan gis bu añ jotee ñu añ reer jot ñu reer ndékki jot ñu ndékki dëkkuwaay yi neex hmm. dëkk bi léegi nag yëpp yi yëpp maanaam yooyu yëpp daaw gis ci dëkk kaw yi léegi ci dëkku kaw yi nga koy gis fa ngay gis espace bu yaatu fa ngay gis lekk gu doy fa ngay cest à ndakaaru ci boppam moo neexatul. Mhm. donc bu la fi yàlla tegee dugal ci situation lu mel nii rek lay jur. mais Ndiaye lan moo tax situation yi ñi nga xam ne amuñu ñi nga xam ne ñoom seen loxo du jot seen ginnaaw rek lay dal. amee ah, ñoxor da yomb a ñoqali déggoo lool labim appel labim. ba pare aussi dafa am ñoo xam dañoo am maanaam maanaam gis nga jigéen bu bu amee doom. amee ko ci sëy amul lu mu ko yore. Mhm. li mu am rek la mën a dem joxe ji pour am lu mu yore doom ci après beneen doom ko cay fekkaat muy ñaar mu continuer ci yoon bi beneen doom fekkaat ko ci noonu lay demee rek. léegi loolu mën nañ koo woowee maanaam lu yegg sa kaw loo xam ni yàlla suñu borom la jógee ñëw dal sa kaw wala mën nañ koo woowee nit ku bëgg lu yomb wala kuy wut lu mu amul wala ngay jéem a ñoddi vie boo xam ni amoo ko yooyu ban la ci doon ba yóbbu nit situation bi. man dee sama de sama xalaat déjà lu amoon yàlla la. Mm-hmm. mais bu ñu jugee foofu. bëgg lu yomb du ma ko wax nit parce que xam nga juge doomu aadama nit bu ne la muy def boo fa tollee def ko. moo tax ma jàpp ne nit bëggul lu yomb moo ko ciy dugal. Mhm. mën na ci am nag. ñu bëri nag li ah, ñu bëri nag li leen di lor. Mhm. mooy li nga wax ni yóbbu sa bopp foo yeggul. Mhm. yóbbu sa bopp foo yeggul. bëgg dund loo amul bëgg àndal ñu nekkul ak sa maas moo yóbbee ñenn ñuy dugg ci luñ mënul. loolu moom d'accord naa ci ak yow. Mhm. nga wax lu am solo. Mhm. wax nga lu am solo waaye ki wax na lu am solo nee na bu réer amul gindeeku du am. effectivement. bu dee ñi la. ñoo lay gën ñoo lay gën a réeral nag. <coughs> du ma sànq la laa la wax xam nga dëkk bii nii ñi la war a wax takkal sa sër koy tekki ñi wax takk ko toogal fii ñoom ñoo koy tekki Sénégal lañ nekk de. ak ñoo xam waruñoo am. da kam ñoo fi xam ne papa ma ko ëmbal te moom fi mu ne moom wax ji toog na. am njaay. boy da leen sóoraale nag ñi xëdde salade ordinaire. ak ak ñi nga xam ne benn brand lañ xëddee. Ah, wax ji wax ji a bëri en njaay. Ah. moom ndaw si laaj na taxaw psychologiquement. xëy na laaj nañ ndimbal aussi. waaw ah, surtout loolu laaj nañ ndimbal. wala bëggoon a ñëw waaw ku ko ci mën a taxaw rek. incha allah mu bëgg mooy koo jàppale ci lu mën a fay location. waaw. nee na mu ngi ci 3 location. lu fay boobu ba léegi nag muñ nag ku ci waaja xam nga lii mooy réew mi. Mhm. jamono ju ñuy wax nañu wàññi location bi parce que ñi am luñ luye am fuñ luye am luñu fayee ñoom location bu seer leen jafe. Mhm. Mhm. am ñoo xam ne amuñ sax luñu fayee. location moom ñaata lay fay weer. wax dëgg yàlla jotuma ko laaj nag xanaa sama pare ma laaj ko. laaj ko ko loolu moo gars bu ko yëgee sax. 77 150 17 17 77 157 17 mooy numéro xalaas bi. yàlla euh, ba Aba maa ngi lay gërëm. Ndiaye maa la gërëm tey man maa tëj maa tëj maa tëj. maa leen <laughs> président de la République représenté ci kuréel bi Colobane ak di saa sori di fële di sori di président de la République am palaas bi mu résidence du président de la République bi nga xam ne mooy démarrer service la résidence officielle du gouverneur général l' Afrique occidentale AF lépp par Sénégal Senghor Dia 1964 ak 1989 xam kii woote ba ko jot président kooku la war a doon fan lay woote. salaamaaleykum. waaw mais ziare. delloo ziar ay ca joxal tur bi sëñ bi. waaw de man la kii quoi xam nga Paco Diaz la quoi. yow la. Paco Diaz mooy xalif général de kullu sàcc quoi mooy ñi kaddu kalpe sàcc jëlee fi jaamur waru xam nga. <laughs> te amul leneen lu gën a rafet loolu. non luy nice na nice na. waaw ah, yow nga jàpp nga ne rafet na daal. loolu nice na a vraiment. a yes te bon. loolu du boo gisee may nga xam ni kontaan naa quoi. ma ne loolu baaxul loolu baaxul. non baax na de. nga fi ngay woote. Ah? man ndax xam nga fi ngay woote ak li la mën a fekk ci woote bi xam nga li la mën fekk ci woote bi. waaw mais li ma ci fekk ma jël parce que ñun loolu ragalul loolu. ay ca kon <laughs> pareel pareel jàpp li la ciy fekk ay ca ana lu waral sa woote. mu waaw li waral woote bi mooy kontaan ci réew mi. ci lan. ndax vraiment manifestation war nañ daanaka ñaari fan yu ne am quoi. waaw c'est parce que yéen yéen a ngi ciy roofaloo yéen sàcc si. waaw mais looloo ci neex. xam nga des manifestation bu demee ba am ay dajji bitik. waaw waaw dajji magasin loolu dootul manifester képp. <laughs> am na leneen lu jarax. waaw bul yàq suñu plan. yéen sàcc si lu ñëw ngeen roofaloo ci biir. bul yàq suñu plan. ah bul yàq plan kay. <laughs> barke sëñ bi non gis nga barke dem bu mujj bi. non vraiment dama ci am satisfaction non dama sàcc sàcc ba gëm ni man. di nga ci am ma ne dox na quoi. di nga ci am mécontentement tamit ne dina la jàpp. waaw mais bu jàpp gi moom yàllaa ko yor quoi du nit. waaw ah, baax na baax na ak coow ñun sax daa laaj la quoi. dee leen def nii sama boy yi sama boy yi ay portable ay iPhone xoolal ay meew xoolal luñ gëj a naana ay meew pire. Ah, na ay xoolal baax yu baax. lu ngeen ci naan ngeen ci naan de la reesee rëbës de. waaw yow ban rëbës buñ fa demee xoolal nañ ñu bës amul problème. waaw ah, baax na mais vraiment manifestation yi moom. waaw nañ koy autoriser quoi xoola am réew boo bu dee jeune nga nekk cim réew da ngay ñaan jàmm te nangoo liggéey bàyyi lu ñëw nga buruxlu ca di jëlee fi jàmm loolu baaxul cim réew loolu métier bu noble réew mi am na liggéey mën ngeen a dem wuti lu ngeen def. ma ni sàcc yi. waaw sàcc yi métier gënu koo doon métier bu noble. baax na jërëjëf loolu dara néew ci. Ah, et yi. waaye buñ la jàppee luñ la ma ne buñ la jàppee luñ la teg rek nangu ko. waaye ñoo xam ne sa bakkan foofu la waroon yem quoi. baax na jërëjëf jërëjëf. tafu mi moom temps yi moom vraiment. Ah, baax na man maa manqué man mi benn benn lan ceeg yow. muy ma ma nga ni lan. votre correspondant de peut-être pour le moment ba yàpp ultérieurement. dox na temps yi wala